moom lañ defaree meew pëndëx yi. moom lañ defaree pëndëx yi. jàng lu si ñoon si ay Viviane ak ay kii. non ñii du ci waxaat. waaw oh, non di moom daa bëgg affaire de cas quoi. ñii ñii. <laughs> yàlla na yàlla defal jàmm. yàlla na yàlla moo xam Viviane wala Aby Ndour yàlla doon leen. tey nañ leen conseil. ñu conseil leen. li dafay ndur ak ci wis gem waaw waaw. sam dafa sensible seulement bi yaa nangul ñu danga bëri man jàmmal naa tuma rab attanu ñu yéene woywoy déedéere waaw waaw ay bibi yaan bibi yaan bibi bàyyil mu tëmb eh, eh, abindur mu wax réew mi suumi réew la bu fi kenn yee fitna nañu delloo ci xol yi nekk ànd li fi nekk ama fi woon mais mais abi moom moo ni li fi <laughs> am fi woon ba pare bëgg coow moom moo ni woon réew mi réew mi sunu réew la hmm. bu fi kenn yee fitna nga dëgg abi fa xoolal fi kenn ba pare bëgg a yee fitna hmm. kon abi bàyyil fitna hmm. ngir yàlla parce que réew mi du réewu fitna. yow léegi ku la abi moo yee fitna. damay waxuma la moo yee fitna yow dégg de moi. je te ba léegi maa lay dégg yow démb ba léegi da défendre kii di Viviane. te yow xamoo ko affaire nu mu nu mu demee yow wax nga ne abi day yee fitna ah. démb yaa ngi fi doon défendre Viviane te yow ba léegi déggoo Viviane ni ñu wax Viviane musul tontu Viviane tontu na Viviane dem moo dem porte plainte te Viviane waroon porte plainte. dolli ma ah dolli ma ah. dina wax ma ah dolli ma ah ah ah ma ah. loolu ban woy la woon. woy na ko fi de. <laughs> wala ah ah ah, ah. ah. woy na de xam naa abi nag est-ce que du ci est que du ci son boobu la inspiré ngir war a wax ma parce que ma ah. doon li ma ah, ah, ah. fala fala ko fi fi tegoon de leer laa lay wax dafa mel ni fa la inspiré woo pour ko xeme c'est que affaire bi doy na waar te mbéy gay faye mën a way bokk na ci danga bu mu wayee lu mu wax Mbaye Gueye Faye mën a way Mbaye lu mu woyee lu mu wax Momo Mbaye Gueye Faye mën way Ous bu mu woyee lu mu wax seng-sengi biram jeey ah. kewe yaay te Mbaye Gueye Faye mën way ay dem dem nunu la wax wax ma la wax <laughs> boole neen ko ci de xaw ma lu ci def waaye histoire mu ngi en eh, tout cas daal. mais eh, loolu Youssou Ndour moo ko woy ak salaam daal jàmm ak salaam ci ñoom buñ nañ nañ giif waaye nañ giif nañ giif. atia ñu dem si kii di nabu Dash ak kii di nga xam ne nii moom moo nekkoon jëkkëram donc nabu Dash tasati na. us dem ñoo wax fii naan Nabou Dash ba léegi tasul kon sëy bii dina baax ndekki Nabou Dash day xëy suba teel annoncé ñu divorcé waaye Nabou Dash mii ba dafa am link link bi nga xam ne ñun xamuñu ko Nabou Dash yow kan mooy sëriñam. Nabou Dash mi kan moo tax lan moo tax góor ñi di dugg si ñoom est-ce que ñoom tamit du buzz moo tax ñu dugg si ñoom à chaque fois est-ce que Nabou Dash dafa am link wala Nabou Dash dafa am leen li nga xam ni jigéen jigéen ñi amuñu ko. en tout cas leen daa xam naa ko ba xam ko ba booloo ko xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg. Hmm, muy leen mooy nal leen ni sàppi na de. yow nag yow bu sàppee nga yaakaar ni. Ah! man man man damaa comprendre. Ah? yow ban sàppi laa sàppi laa wax. sàppi. waaw sàppi na ban sàppi laa wax. sàpp bi nga wax moom laa wax. waaw léegi ko ko yow yow di dama ni sàppi na yow nga ni ma ban sàppi. bu déggul xaaral. yaa ngi déglu dafa am dafa am Nabou ni moo ngi wax xaar moom. acca. Nabou Dash waxal. yow la sëy tas na nekkuma ci sëy. Mhm. ku ma romb ci mbedd bi ak xale bu góor xam ne te daan na bu elle est hmm? parce que c'est important. dama siiw moo tax te mën naa génn du ma xam ku may gis n'importe qui mën na ma gis gis ma ak góor ma taxaw. di waxtaan sama buntu kaw je sais pas naan kii amul jëkkër am far non non non dama tas ñaan naa ko sama baat may na ma sama baat sëy bi tas na idée bi des na un mois mais maa ngi maa ngi nuyoo ak keneen en attendant les événements je suis très sincère y a pas de d'amour y rien c'est le père de mon fils ça s'arrête là basta moi ma paix intérieure moom gën a lu ma am baax na rek merci keneen ku ko bëgg nag man na bu daaj pare naa keneen ku ko bëgg jëlal ma may man na bu daaj pare naa si keneen ku mu jaral jëlal nga dem man l'essentiel maa ko jural Ahmadou Bamba sëriñam point final au suivant. ay waay Samba jërëjëf na bu daas kenn du yow nee na au au au suivant la la may Nabou Daas nee na tas na ku xorom si mbedd mu taxawaat ak beneen góor bu jàppee na Daas mi kay dafa am jëkkër ba pare am far maanaam fu mu toll nii moom tas na libre na te fii ak quelques mois dina am keneen ki nga xam ne nii mooy nekk bees mooy nekk jëkkëram parce que idam idda bi un mois rek moom moo si des. léegi man mii. man su may su may jàmb damay jàmb lu saf neex. <laughs> yow doo régler. mais yow yow xam xamoo des fois des nga jënd nga jënd màdd nii. ma ne la su may jàmb damay jàmb lu tu neex. man Ousmane du jàmbal benn meer waay jàmbal gaaw jàmbal benn meer li ma yor dafa seer dama koy rënk pour xale yee man Ousmane du ma jàmbal benn meer waay loolu réglé man maa fii nekk di jàmbal meer man benn meer laa amal contrat am yéene jàmbal ko muy Mbodia Mbaye. ku dul moom rek bëgguma laa jàmbal. sama xel a ngi ci dee. Eh, yow Mbodj Mbaye am na borom de. waaw yow doo réglé. ci kër gi fii da nga fàtte. waaw yow yow ngeen ngeen nar a raag raag met na yéen ñaar. zéro ma koy jox ne lawal. zéro nga ah, maanaam sama yéene. <laughs> ci Mbodj Mbaye laa moom bu ma takkoon ma sëyal ko. ñu naan ma Ousmane boo la takkee di nga se ma naan ko sëy rek. ba dee eh mbaa bu la takkee di nga ma naan ko. sëy rek ba dee. ñu leer laa waaye yeneen yi su boobaa la la jërëm di dóor ay kurpa sàppi na non non non boobu jërëm dina xam ne du dërëm boobu samay salañ salañ lay préparé dem ci waajoo di jaay toj xuur ba xuur jërëm yooyu mu jaay ma ay affaire jërëm prépare toi ma préparé ni muy préparé mais hmm. lu sàpp yi hmm, doy sëkk ku bëgg na jël attends rek yow bëgg na jël pour ñoom bu dee góor ñi ay dayu dof leen ci dëkk bi ba ko romb for. mais ñun problème mooy. ok dém démb démb rek lan doon tagg Nabou Dash naan Nabou Dash moom alhamdulilah ba sëy moom dina fa yàgg. ndekete tas na bu yàgg. du loo ñu ñun. na boo def lii de la def moom ma métti sérieusement